salaamaaleykum addina salaamaaleykum Sénégal ñi ngi sant yàlla di julli ci yaakaaru jaam ñi Seydina Imaamalahi Al Mahdi di am contentement teewaat fii ci seen émission salon des VIP ndax duma ci wet nag comme ni muy amee saa su ne maa ngi ci ànd ak euh, Miss Guèye euh, may am euh, contentement teewaat fii aussi di leen baalu ak ci weer bu màgg bi li nga xamante ne mooy shahru ramadan bal leen ma àq bal naa leen Miss nuyu naa la fay naa la Zak asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ngeen ñëwati rek ci li nga xamante ni moo di salon de VIP chaque jour rek ak lu bees tàkk salon des VIP nag tey boo leen gisee VIP bi ñu toogal di ngeen xamante ni VIP la waaw comme Miss ni mu ko waxee rek euh, comme yaakaar naa coom euh, sama VIP bi ma invité tey boo ko jëlee gros plan àddina dinañ ko xam waa Géejawaay xam nañ ko Sénégal xam nañ ko monde entier ñëpp xam nañ ko muy kan sëñ Tawfeex Mbay sëñ Tawfeex maa ngi lay nuyu. ñu bu baax a baax. waaw sëñ Tawfeex man balaa dara di xew. Mhm. dama dugg ci internet bi. Mhm. mu xool say mbir. Mhm. dama bëgg nga am loo ma ñamal lu ndaw. Oh. waaw daal ñu que damay daaneel. Mhm. ma yemm man te naa cey sëriñ Saliou li mu def jar na yemmu naa cey ku ma yemm man te naa cey sëriñ Saliou mu def jar na yemmu yéemu naa ci biram ay jëfam dama yéem ñépp a man di ci wax sax ku mën bindal way ñépp a man di ci way ndax mbiram du luy jeex mbàkke xatut xatalul yaatu lool te daa neex moo jëfoon la fi woon mbàkke moo jëfaat tey jëfi tey dafa gàcceel la woon ne leen cey kuy wax ci li mu jëf bàyyi sëriñ Béthio mi loo fi wax safewul jëf ju rëy ji moo ngi fekk kook ñu ni jàngul baate xamul siin nga def ci moom ba mu raw ñëpp mbàkki yaa man aalimak ñi fi mokkal ñi wàcci kaamil ñépp a ngi di ko raamal te naan ko naam cuun mani lii ki ko def bu nu waxul jëfam ji lu nu fi wax safewul actualité ngi sal samb na nga wax réew mi ñoo ngi lay xool ya konaate na nga jug mbaw bayal ci bii tool seeni wax rek a saf yéen jar di seetaan sëñ Saliou mu def rek ci ngeen di waxtaan sëriñ Saliou mu def lu ci gën di kéemaan seex beeco xewagul gaa yi nan ci waxtaan mbonte kër ku ca jëm teggi buntu foo jaar yow sa duggin du rafet buntu baa ngi nan jaar sëñ beeco li nga doon bunu doon lu nuy doon nu doo doon ab sëriñ ki la def nii mbàkke danoo moom moom na la tur wenn tur la rek cuun ngir bëggul lu fi rax jëfam ji danoo moom sëñ Béthio jànguloo yoruloo kurus te wér doo lii bu amoon danu naan tur wi mi wér dafoor sëñ Béthio jànguloo yoruloo kurus te wér doo lii bu amoon danu naan tur wi mi wér da foor kenn amul lu mu rax ci jëfam ji tey jii loo ci gis di nga xam ni lépp sëriñ bee sëñ becco moom waxam doxam ak loo ca gis la ngay seen mooy sëriñ saaliw mbake moo di kéemaan kon nag nangu leen nangu naa gaañi jébaloo wóor yaa fi am digalul nangu jéebalul jaam nangul naa la ko moom doo ko dégg tey jii fenn fenn fudul ci sëñ bee ca mi ñun la sant war ñun ñi ko am ñun la sëriñ Saliou defal taw féex ju amul fu mu yam oh. mu ne continué ma daam est-ce que est-ce amul autotune ku koy autotune si si suuf. <laughs> am am lu mu àndal parce que man dafa am benn wax ju ma ju ma ci ju ma ci daaneel. Mm. nga xam ne yorul kurus. jànguloo yoruloo kurus te wérdoo. waaw ndax bu amoon danu naan tur wi muy wér de fort xam nga mbirum Serigne Saliou ci Serigne Béthio. Mm-hmm. da ko def ba pare ndax Serigne Saliou lu mu def lépp kéemaan la. Mm-hmm. lu mu def kéemaan la. Mm-hmm. waaye li tax ma ni Serigne Saliou li mu def lu ci gën di kéemaan suñ beccu xewagul mhm. nan ci waxtaan ndax bu dee yar ay donga ñuy jàng ca daara ja di wàcc kaamil di bay loolu euh, sëriñ Saliou li mu ci def ba ba àdduna sosoo ba léegi mosuñoo gis ku def lu toll noonu mhm. li wàccee li wàcc kaamil ci xel koom li ci bokk alxuraan fa xel koom ak la fa tarbiya kenn musta def lu dol noonu ba maam ba wala musuma koo dégg baa musuma koo gis fudul Sëñ Saaliw waaye loolu lépp kii man la waaye nag jàng moom lu yàgg la ci àdduna ndax euh, sëriñ tubaa seexam yi defoon nañ ay daara ki ñu wax sëñ Mandumbe Xabaan moo daan bayal Serigne Touba ci diirub li nekk ci ci ci géej gi di ko jox njaboot gi kon loolu yàgg na ci yoon wi kon loolu Sëñ Saaliw def na ko waaye téewul amoon na sëriñ tubaa it seexaloon na waaye comme ku mel ni Sëñ Béthio nga xam ne léegi rek ñu ngi koy waxtaanee ku mel ni Sëñ Béthio euh, ci ab sëriñ maanaam ba ab sëriñ xewee ba léegi mosumaa gis it sëriñ bu mel ni moom ndax koo xam ni alxuraan nee na waaw la ci xam waaw te waaw lim duróog neuf moo tax mu xàmmee ko. dégg waaw nee na waaw lim duróog neuf moo tax mu xàmmee ko. comme waaw ak neuf waaw xam nga xam nga waaw daa daa waaw daa nduróog neuf suñ becc noonu loolu tax mu xam ko. te Serigne Saliou def ko ni mu ko def. Mhm. maanaam ni ko ni ko ay taalibeem bëggee. nit Serigne dana jàng sax ba mokkal kaamil yi yori kurus ak yëpp. Mhm. te suñ becc nañ mel du mel noonu. loolu nag day kiimaanu sëriñ Saliou. Mhm. moo tax ma ne ko jànguloo yoruloo kurus te wérdoo bu amoon dañu naan turu mi wér de fort xam nga ni ko Serigne Saliou sax def teewut. nit ñaa ngi ko koy baatal baatal ginnaaw bu ne. waaye nag Serigne Saliou moo ko bëggee woon noonu ngir bu ko defee ba pare ñoo xam ne lii jëfama mhm. ndax bu jàngoon bu ko seexalee dañ naan war naa mën a ne doomi soxna la mhm. ndax maamam wàcc na kaamil suñu becco wàcc na kaamil kon war nañ ko mën a seexal mhm. wala bu juddoo woon ci ak sëriñ waaye ay maamam ñëpp ay caddaloon ndax man mii mook sama waajur bu góor seen ñaari waajur a bokk ndey ak baay ki ko jur ak ki jur sama baay bokk ndey ak baay. sëñ Tawfekh émission bi daa mel ni dafa commencé nekk te demagul fenn. ñu xam la. waaw waaw moom mm, ñu ngi santaat yàlla bu baax di wax jërëjëfat Serigne Saliou di ñaanal Serigne Mbecco mi nga xam ni moo fi bàyyi ko bu yàggul yërmandeem dolli ko ci ñun. ci barkeem Serigne Saliou te yàlla taas ñu ci barkeem. Euh, di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fii. amiin di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak mbooleem xalifa yëpp maa ngi leen di ñaanal ñoom ñu yàgg fi ci barkeb sëriñ Saliou rawatina fii nu ñëw tey di Cambérène waa kër Sidna Limaamu ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax te ñaanal sunu xalifa bi moom it mu yàgg fi ci barkeb sëriñ Saliou waaye di ko ñaanalee këru diine yëpp noonu ñoom it suñuy kilifa yi yàgg fi loolu te di ñaan li xew bu yagul gëj fi lool ci kilifa yeeg talibé yépp yalla na fi gëj ci Serigne salif di nuyu bu baax euh, yeen ñi nga xamni yeen la fekk ci di bég ci euh man nak la Serigne salif tawfiq mom Serigne Béthio ñu gën ma xam ci tawfiq mbaay ndax yalla da dogal sama wajur domum yépp tuddu Serigne salif ñu ñi xajjalé di wax tawfiq ak xéewal rek nangam ngir bu ñu ñu mëna xam kan lañ ci waxal. waaye man la Tawfekh Mbaye mu Cheikh Béthio di ab taalibeem di way katam waaye di doomam maa ngi siyaar ñii seetaan ñëpp di siyaare Ali bu baax sekk ah, gis naa gis naa say vidéo mm-hmm. gis naa œuvre yi yaakaar naa àddina tamit euh, gis nañ ko. mais mm. xam naa gis na ko moom tamit. yaakaar naa démb ci guddi rek ñu may message. Mm. naan man taw euh, Tawfekh Mbaye li ma gis ci moom. Mm-hmm. macha allah mm-hmm. te wane nga ko léegi rek. ci mm. maanaam ci benn euh, intro bu ndaw boo xamante ne may nga ñu ko rek. macha allah yal na yàlla wéral baat bi. amiin naa xam nag say projet. ci ci ci foo ci toll. ci yan projet nga nekk nii jamono ma ñu toll. waaw xam nga projet yi moom. Mm-hmm. di ma yàgg wax rek ni ñun moom suñuy projet yëpp day sëriñ bi. ndax ku ne xam na ni suñ beccu moom projet yi ñu teg daa bokk ci di sant. yàlla saa su mooy sant Serigne Saliou ci nun maa ngi ci cant gi fas yéene na ma àndi woon ak moom fas yéene ko wéel ci ak njabootam projet yi nag daa bokk ci màggalug sëriñ Touba gi daa bokk ci gàmmu gi. daa bokk ci xasaayid yi nga xam dañoo jox ndiggal ñu ñu ñu ñu war ko jàng waaye bokk ci nag soppe yi nga xam ni ñoom la ma booleel te saa su ne ñu leen war di bégal projet yooyu it mu ngi ci samam xel ñu ngi waaj ngir ay tournée yoo xam ni dañu koy def fii ci dakaar ak lu génn dakaar ak loo xam ni fii ci réew mi la ak ci bitim réew loolu nag li ma ci jublu mooy fas yéenee sargal sëriñ Béthio fépp ndax nag danoo wane danoo sagal danoo dimbali ba àdduna sépp xam ko kon man li ma war mooy turam wi ak turu sëriñ Saliou bi ma fas yéene koo yóbbu fépp fas yéene woy fépp fas yéene fépp foo xam ni ñu ngi fay way leneen lu bokkut ak loolu ñu yóbbu ko fa way fa sëriñ Saliou ñu ngi koy waajal incha comme loolu mu wax rek daan ne moom ni muy dundee ak li nga xamante ni mooy projet waaye projet man ba ma duggee YouTube ba xool li nga xamante ni moo di jaar jaar Tawfekh damaa kontaan bépp am fierté toog ak Tawfekh ndax Tawfekh lépp li nga xamante ni nekk ci Serigne Salim ak Cheikh Béthio ci lay nekk moo tax Tawfekh daal dama gën a sawar ci moom pour interroger ko waaye Tawfekh digganteem ak Cheikh Béthio Thioune nan la demee ndax gis nañ ni ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio lépp liy Tawfekh mooy mbégteem ndax dañuy gis ci ay li nga xamante ni moo di cantam mhm. day yëkkati ki nga xamante ni moo di tawféex kontaan ci tawféex ba tawféex da koy yëngal loolu laa ko doon laaj li nga xamante ni mooy relation digganteem ak Cheikh Béthio Thioune waaw diggante bi moom mhm. li ci jiitu mooy diggante sëriñ akub taalibe di mhm. ci topp mooy day sama waajur wax naa ko léegi ndax moo sama bàyyi seen ñaari waajur bokk ndey ak bàyyi mu doon koo xam ne nag li ne ci man lépp lépp moo ko ci def ndax moo ma tudd moo ma ngénte euh, jël ma jox ma sëriñ Saliou ba ma waree jàng moo ma yóbbu ma jàngi ca xel ko ba ma wàccee sëriñ Serigne Saliou boolewaat maag moom li ne ci man yëpp muy way yi may way nga xam ne ci laa koy bégal sax moo may woo di ma teg ci yoon doxil nii ak defee nii kon sama digganteeg moom moom mooy diggante jaam akub sangam nga xam ne way yi may way Serigne Saliou ba mu ciy bég di ma wane ci aduna nit ñi wax nga ko sank di yéemu ci way lolu li nga ni da am luy wax mom ci suuf maam li wax ak man ci suuf mom la ndax man ci sama jëm damay tok yeen say yi wala mu dugg sama to tek sama way di diglu wat damay xam ni lii am na lu ci tabbi lu bokut ak man ndax wir na mu ni bu dee man kasse du ma ko mën waaye kii maanaam mom da ca tabbi sama diggante ak mom nak lolu la manam ki man gi ci am mhm. ak big bégal gi ma koy bégal lépp ci moom la soqi ko mhm. ndax première bu ma nee yi bari nañ mhm. te ñëpp mënees na ko bégal mhm. waaye bu ñëpp toogee damay laajte fu ma ne dafa am 17 avril bële passé dama ànd ak moom ci otoom ñuy wër dëkk bi ba ay 6 heures du matin ñu ñëw ñu tëdd man ma biddanti bu xëyee moom day def ay ndékki ci bisu 17 avril bi bi ma biddantee fekk moom maa ngi moom a ànd ñu ñëw moom xam na ni biddanti naa mu génn ci baas bi rek nañ ma wal Tawfekh mu ñëw way Sëñ Saliou ñu ne ko Tawfekh ñëw fi ñu ne ko moom di ñëwagul bi mu nee ñëwagul rek am am na ku jug ca jotaay ba daal di yëkkati mu ne ko waxuma la Tawfekh laa wax toogal nga xam ni dañ ma xaar ay minute ba ma ñëw ndax biñ ma woowee dama damaa yeewu rek sa position boobu rek di daw bi mu egsee ci baas bi nag sonn di xëxët bi mu egsee nar way mu ma dama ni taxawal nañ la jox ndox nga nan noppalul ba noppi sogo def lu la neex lolu nak te fek ñepp ngi tok lolu ay mbir la yo xamni mom lay doon lolu nimbeulam la ci man ma ngi ko ci sant bu baaxa baaxa baaxa baax a mom dal sama digënté ak mom da ngeen xamni liko war ci man lepp def nako lip def nako man nak ma dese tay ñaan ngor gu mako ma talé ci Serigne salim Cheikh mhm. moo la gën a marqué ci mhm. Cheikh loo xamante ne dala marqué ba may du dañ sa xel waaw li ma gën a marke daa bokk ci demam gi mhm. moom loolu daf ma marqué trop daf tax mu marqué ma mooy daanaka li mu diir bi muy nekk Bordeaux yëpp dañuy déggante maa ngi ki démb rek maa ngi naan la sànq nii rek maa ngi naan la oto bi mu ma jëndal Euh, bi mu wàcceeg léegi matagul vingt jour yaakaar naa wala hmm. quinze waaw. waaw oto bi boo duggee YouTube BM W. bi muy ñëw defe naa ni taalibe ku nekk rek am na loo yëg. waaw waaye taw oto bi daa taxaw fële leen na gën a dugg. comme liñ naan lu baax boo koy def bul ci yeex danga ciy gaaw. Hmm. moo taxit taw féex leen na oto bi dugg taalibe yëpp di bëggee. bi loolu amee. yow ma jëndalee oto fekk sama way yi la doon déglu. li ma doon way sànq. kaset hmm. bi mu bokk. la déglu ca Bordeaux. Mhm. daal ni damaa bëgg Tawfekh Mbaye ñu bindal ko oto ndax waye mi kat dugg de ma audio baa ngi sama téléphone xam naa du ñàkk. Mhm. bu noppee danaa leen ko wan. mu ni Tawfekh kat damaa bégal bégal boo xam ma sañoon ñu wutal ko oto. Mhm. biñ ma wutalee oto bi ci guddi gi guddi gi mu waxee loolu man yëguma ko man damaa tëdd nelaw jékki-jékki rek gis sama téléphone audio yi groupe bu ma dugg rek fekk fa ñaari ojo yi nduroo fekk boobu da ko wax ba pare nañ ko tasal ojo yi nga xam ne man dañ ma ko envoyé maa jékki-jékki rek ñu woo ma téléphone ni ma waaye suñu becc li man ma jóg ñu ne ma taal sa connexion ma taal xool gis ay audio ma déglu man ci laa ko yëg maa nit ñi sax ma ko njëkkee yëg bi ko defee ñi fi jàpp ma nag ma ma ma toog ba ay 2 heures du matin mu woo ma téléphone ni ma man de sa way tey laa koy soog a déglu li ma wax naa nañ la wutal oto woo ma ni ma déglul na gaa yi sasu nañ sasu oto bi léegi laa bëgg mu mat gaa yi sasu ko moom téléphone mu pare ni ma jëndal lañ oto bi moom dalañ la ko jëndal waaye damaa bëgg nga fekk ma bërdo mm-hmm. nañ la daal di dugalal say kayit fekk lu jiitu loolu dugaloon na ma ay kayit ngir ñu ànd États-Unis far sottiwul mm-hmm. mu ni ma nañ daal di dugal sa kayit yi ndax damaa bëgg nga daal di may fekk bërdo mm-hmm. ndax yow mënoo ñàkk ba ñu ñëw bimu waxe lol ne ma waye nak bala ga ñew nañ la indil sa auto ni ma nang ko dawal senegal bu ñepp xamni sa auto ñew na nga sok ma fekk Bordeaux bi auto bi ñew bañ duggal kayit ba lolou wara am li xew motax lolou marqué ma lol te bima mujjé digënté mo téléphone rek dama laaj fu kayit di tollu mané ko duggal nañ ko mune ma di nga ñew de ni ma yow dama la nam faaw nga fekk ma fi te bobu mu ngi ci tawat ji bimu démé ba suñu borom wara def li Euh, ndaysan mu mu mu mu wat lola. talibim ya nga xamni ñom la santoon ne len tawfik mbay na ngeen fexé bam ñew ñëw Bordeaux bi ñibbisee dañ ne li serigne bi wax ak yéene jim amun te ñu xam ko lolu duñ ko duñ ko bañ def mukk mm-hmm. ni ma dañ la yobbu fu mu bëggoon dañ la fa yobbu ba paré nga xamni bi mu eh, France di ñew ci jak privé bi sama way lañ ko tégal ci ci jak bi ngir daa joxe woon ndigal ni fu mu nekkati nañ ko fa teg. xam bi mu jógee France di ñëw sax moom lañ teg sans way yi loolu nag lu rëy ci man la. ndax waykat yi ñu ko way danoo bari. te maa ci mujj ñëw. xam nga koo xam ne 2017. la tàmbali ci yëf yi. ak léegi yàggul. man bi gaa yëpp way maa nga daara ja ma ñëw mu def ma nii mu ma def. Mhm. kon loolu war naa ko sant ba àdduna sépp dégg ko. Mhm. man it li taalibe di bari bari man la mujj defal teraanga ju ñëpp yi dégg man la ko mujj defal muy oto bi ma jëndal man la mujj teral ci ay taalibeem ci zahir ndax moom teraangaam ci ay taalibeem du dàkk du dàkk mukk ndax gëm nañ ni tey la ko gën a mën waaye euh, zahir bi laay wax mooy man la mujj teral li li ay millions ngi taalibe la yor waaye teraanga ji ma defal man la ko mujj defal ci kaw suuf loolu nag sama taalibe taxul mënumaa jëf ndax gaa yi ëpp lu jëf fop mhm. waaye sëriñ bi nag moo moo yor coobareem di ko mhm. def ci loo ko soog mhm. loolu moom la ñu ngi ko ciy sant comme li nga waxoon rek daan ne sëriñ bi nitu coow la nitu coow la tax na di ba sëriñ bi génnee àdduna li nga xamante ni moo di nelawam dañoo dégg ñii naan medinatu salaam ñii naan tuuba ba tax na dama naan murit ak ndigal ak jëfe moo tax ma ne leen ba xam jëfe gii ñu ko defee ki nga xamante ni moo di xalifa képp ki nga xamante ni moo di murit daal di joxe li nga xamante ni moo di ndigal ñii ne nag seex becco dana leen woon medinatu salaam nan ngeen doon dundee loolu noonu ak li nga xamante ni tiis bu wàccoon seen kaw la nan ngeen nekkee woon ak loolu yéen ñi nga xamante ni da ngeen a jóge woon seex bi lool waaw xam nga seex bi moom euh, yar ci ak murit noo yar ci jëfee ndigal bàyyi tere moom bi mu nelawee bu doon daa doon ñaari jëmm benn bi nelaw benn fi des fi li ma leer mooy bu jëlee woon benn bi bërloo di ko indi mën na salaam sëñ Muntaxa woo ko ni ko nañ ko yóbbu Tuuba moom la sëñ Muntaxa lay def kon ak njabootam liñ def rek lañ war a def am na nag luñ ci jàppoon nga xam ni jàppoon na ma jàppoon na keneen jàppoon na keneen ku dul man mooy lim ni ñu woon nañ ma yóbbu mbuur insisté ci mën a salaam insisté ci biñ ne Touba lañ ko yóbbu tamit loolu xawoon nañoo perturbé ba ñu bari ci ñun ku ci ne am noo doxe waaye loolu après maanaam kilifa yi nañ xam ni ak cofeel rek kanu ko teg ak bëgg la muy sunub sëriñ ñu bëgg ko ba amuñ ci moom sago xam nit boo ko bëggee ba pare nga boolewaat naqar mooy mu lir ni ni fu muy tuubaak mën na salaam fu mu ca dem fu mu ko ca xasa denc ci zahir ji mu jooju doo ko gis naqar boobu rek mën na laa jàpp ba ngay def erreur yoo xam ne doo ci bàyyi xel moo tax mm, maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi tuubal ñëpp di jéggalu ñëpp waaye di jéggalul ñëpp képp koo xam ne waxoon na ci lu mu ci warta mhm. baa mu def ko ci ñun ñëpp ñu ngi maase di jéggalu mhm. yoon wi di jéggalu waa lislaam bépp mhm. ne ak cofeel rek jàppoon gaañi waaye xam nañ ni Touba moom moo gën ci murit Touba gën ci murit te Serigne Saliou kat ma nga Touba ñëpp nga Touba kon sëñ Béthio te lañ ko nangul Touba sëriñ Serigne Saliou du ko waxoon ni ko sëriñ Touba dalaa nangule nu musta nangule kenn loolu nag dafa feeñaat ci bi mu demee Touba ndax ku ne xam na ni bàq ye nanguwuñ ku fa tabax baa nga fay wërale dara mhm. loolu ci programme bi la bokkoon mosuñu ko nangu. Mhm. te suñ Muntaxa dani. Mhm. Cheikh Béthio kat nañ ko tabaxal lu lu leen soob nañ ko ko fa defal. kon loolu daa wane waat ni loo ko suñ Saaliw waxoon ni ko suñ tubaa dalaa nangule lu mu lu lu mu nangulul kenn. Mhm. loolu daa feeñal ndax suñ Muntaxa moo fi Sëriñ Tuubaa. te nangul na ko fee. loo xam ne mosuñu ko nangul kenn. kon wax jooju moom dikkaat na. Euh, euh, Cheikh wax na lépp. Ah, wax na lépp waaye mais xam sa relation ak waykat yi. waykat yi ci relation parce que lu am solo la. waaw mhm. seen mhm. moom de. parce que festival tamit aussi gisuma la ci. dëgg la te da cee gën a nekk tuuti mais dëgg la xam nga loolu moom liggéey la boo xam ni. Mhm. xam naa saa buñ ci waree yegg rek. incha nañ ci yegg. ndax yàlla moom mooy dogal ci jaam te dañuy sabablu mhm. gëm ni lu ñu war a bokk rek suñ borom dinañ ci boole bu gënee ci ñun mhm. te dinañ sabablu mhm. waaye suma relation ak waykat yi maam waykat yi ñi ma ci xam ñëpp samay xarit lañ ñi ma ci xamut tey dégg ñuy def lu neex bëgg naa leen ndax man way yeneen bi rek ma ñor way ni way Serigne Saliou man moo ma intéressé ndax bu ma sañoon ku koy def teraanga ju nit di am di nga ko am ndax danoo amul lu dul moom te sunu temps bépp ñu jël ko def ko ci kon waykat yëpp euh, jàmm laa leen yéene teraanga yi laa leen yéene ngir dañoo wax aw askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp ne bu mhm. dul mhm. koy way mhm. maam ñun moroomi waykat ñoo ko waral di feesal. dëgg la loolu ñun lañ ko def. te man noonu la ñuy festival salaam bi. Mhm. sax nekk ca xam leen mu ne bu ma mhm. mhm. leen ba mu jeex ma ànd ak kuy way diine rek ñoo ci war a jiitu. ngir way diine danoo teral danoo yëkkati te danoo defal lu ne. lu nu am rek. way yu nuy way Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Serigne Saliou moo nu ko may kon képp ku ci ne war nañ laa war nañ laa jàpp war nañ laa jàppale waaw ndax way moom daa doon loo xam boo ci nekkee du sax maanaam euh, loo xew-xew ak loo fi yàgg-yàgg day dem ba day am ñeneen ñu ñëw mhm. man bañ naa ko ba damay ñaan ni yàlla nañu may suñu borom may nu gudd fan mhm. may nu ak wér may nu carrière bu gudd te yàgg waaye ñi nga xamni ne ñoo war a ñëwaat di suñu rakk mbaa suñu do mhm. man ma ngi ñaan suñu borom boole ma ci ña di jappale bañ taxaw di mhm. lu yag yag loolu mo dara yalla mën na ko ndax ki nga andal dafa jara andal waye dañuy laaj li nga xamanteni moy li nit ñi di wax muy li nga xamanteni moy tok 16 bi ñuy wax mu nekk ci réseaux sociaux nekk ci journaux tat te Cheikh Béthio dafa nit ki nga xamanteni ni dafa amoon talibé taalibe lool nanguloon Cheikh saliw lool mhm. dan ka defal lu ñepp di gis muy la di set avril ak muy màggal muy ay cantam lépp nit ñi koo xamante ni daan na wax li nga xamante ni moo di waxi dëgg mbala ngay gis lépp li nga xamante ni mooy da gis gis bu rafet daan nga gis Cheikh Béthio ni mu nekkee woon ak Serigne saali comme toog siège boobu ñuy wax ak ki nga xamante ni moo war a doon moom la ñuy laaj yéen nan ngeen di dundee loolu ndax ay noongay Cheikh Béthio takku nañ takk goo xamante ni du loo xamante ni dañ koy bàyyi muy mhm. agent waaw moom di sa boobu daa laaj boo xam ni xañ na gaa yaa ngi wax ci internet bi ku ne di wax waaye daam loo xam ni damaa jàpp ni sax du commentaire ndax ku war a donn moom donn kay ki ko war a def mooy ko war a donn rek fii ku fi jóge di kilifa sab taaw mooy mooy doon sab xalifa loolu moom am na pare ku war a donn moom waxatul ko ki war a donn moom Sëriñ Saliou Gueule Tapée Thioune ñu ngi koy siyaare bu baax mhm. di ko ñaanal mu yàgg fi te yéen bi woyof ci kawam moo ko ay rakkam yëpp kooku kay mooy xalifab suñu Béthio Serigne Saliou Gueule Tapée mooy xalifab suñu Béthio comme ñu xamul woon mu leer ci seen nopp ndax social shopping moom boo leen ko déggee lépp lu nga xamante ni mhm. mooy leeral ci la ñuy dox li nga xamante ni mooy seen bànneex li nga xamante ni moo leen réer ñu bëgg mu feeñ ci seen i nopp leer ci seen i bët ci la mhm. ñuy dox ba tax na yéen ñi nga xamante ni yéen a kooku di taalibeeg Cheikh Saliou moo ñu ko leeralal ba mu leer nañu. Mhm. taalibeeg Cheikh Béthio moom leeral nañu lépp li nga xamante ni mooy wàllu doon ba kooku di taawu Cheikh Béthio Thioune mbooloo mi ci ginnaawam la ñuy dal yàlla na yéen bi oyof lool ci kawam amiin amiin amiin yaakaar naa euh, wax ji franco laay mhm. mais dañuy nuyu Zal ñu mhm. ngi ci àll bi. te ak koor gi nii kàngoor ñu koy woor na sax Zal Issa woor na sama xarit place am nga toog te wàllu sponsor yi moo ko doon jàllale jàllale ko. waa comme sponsor yi dañ leen di woo chaque jour rek waaye defe naa ni xëcc bu daggul dikk de tepp tepp a gën yuret xool bu ànd ak xef du métti ni ma koy waxee l'enfant qui mérite son lay doon sponsor yi ñu ngi leen di woo waaye duma fàtte Mama Gueye mu Serigne lépp li nga xamante ne dafa takk ci Serigne Saliou daf koy bëgg ba bu may wax ci Serigne Saliou sama xel danaan toog ci moom rek sama dem ci moom daay daay danda leen la l'enfant qui doomu banlieue baa ngi ni doomu géejawaay baa ngi loolu la loolu laa wax dëgg la Zane Ndiaye dootul papa Zane bi ñëwee tey kii lay à gauche à gauche lay wax. bëgguma Sappoor ñëw comme ni lay amee saa su ne ah salon des dañ fi indi ay naanaan ay VIP yoo xamante ne kenn dootul leen laam laale ci àddina. Mhm. comme euh, Serigne Tawfekh Mbaye mi ngi nii tey suñu kanam maa ngi jot ay messages yi nga xamante ne macha allah ci moom yi nga xamante ne. yàlla xam doy na mhm. yàlla bu baax tamit bu baax sëñ tawféex hmm. xam naa ni amoo temps ak gi ñu nekk temps bi xat na waaw xoj nañu waaw naa looy tàggoo waaw li may tàggoo mooy santaat bu baax mhm. te di leen ñaanal mhm. seen liggéey bi barkeel ñu dem ba ngeen bokk ci télé yi gën a mag ci àdduna bi duma wax ci réew mi ci àdduna bi ndax yàlla mën na ko te Serigne Saliou dañ doon wax ni kenn rek a ma jaaxal mooy ku ragal ak ku yàkkamti kon bu leen ragal waaye bu leen yàkkamti lépp lu ngeen gis ni ñëpp a ngi koy engagé engage leen ko yàlla fekk leen ci ñu ngi leen ciy ñaanal bu baax di nuyu alim nga xam ne day suñu mbokk di suñu xarit di suñu lépp wax dëgg fa yàlla bég nañu daal bég naa eh, di di di baal ñëpp àq mm-hmm. waaye di baalu ñëpp àq di santaat sëriñ Saliou bu baax a baax di ñaan suñu béykat yërmandeem gën a dolli ko ci ñun. ci barkeb Serigne Saliou. day day ndeysaan kontaan na ndax yaakaar naa oyof na ñu woola la ni ci koor gi ak temps ni mu xatee ak conférence yi ak yiite yi ndax ku mel ni moom yaakaar ne jamono ji day xat lool sax waaye tamit maa ngi nuyu ñoom papa ñoom Malick ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw ak ñoom coom parce que ñun toog nii rek di wax lan am son bu su baaxee ñoom la image bu rafetee si ñoom la kon maa ngi leen di nuyu yàlla na leen yàlla taxaw yàlla jàmmal leen yàlla suturaal leen li nga xamante ne caabi di leen féete ginnaaw yàlla génne leen ñu génne leen foofu ak jàmm malade yi nekk ci kër gi yàlla fëgg seen bopp barki sanga ba xayru naas maam di baas miss looy tëjee comme ni ko waxee rek man defe naa du ma lim ndax social shopping li ko ëmb dafa bëri waaye duma fàtte papa Thion waaye samay ginne caméraman man chaque jour rek laay wax ndax samay ginne lañ man ñuy samay ginne caméraman fépp foo ma di taxaw rek bu leeree nañu bu ngeen mën a xool ki nga xamante ni moo di l'enfant qui mérite son nom samay ginne caméraman lañ waaye duma fàtte maa ngi bëggee sama yaay bu baax ndax sama yaay doo leen ko jot di dégg ma koy wax koo nga xamante ni dafa yër ay njaboot maa ngi koy bëgg bu baax passage suma solo soloo ba mu jekk sama yaay la di bëgg suñu waa kër sama famille bëgg naa ñëpp ak képp ki nga xamante ne mi ngi bëgg l'enfant qui mérite son nom Miss Dear Paradise lay doon waaye dama naan leen chaque jour salon des VIP mu indeetu lu bees tàkk ba beneen yoon ak lu bees tàkk lu bees luy ñëw rek di dàq li fi am tey Miss l'enfant qui mérite. son nom son nom Miss Dear Paradise. dama bëgg nga ñu tàgg maanaam tàggoo. benn tàggoo ba nga xam ne parce que. li nga tijjee. Mm-hmm. ah laal na ma de. yéen a. <laughs> du du ma du ma la nëbb de. damay ah. a dina ko dina parce que maanaam yaakaara woon ñii la. Mhm. mais day ñëwaat salon des VIP incha te boobaa saal bi. day gën a yaatu ndax bu may daanu moom xii non xii nii. Mhm. moom xam na fi may waxee. bu baax kii xiin na boppam dèjà. non sànni yaa ngi dégg buy yuuxu noonu. moom dégg li may yëg. moo tax ma ne la est-ce que est-ce que micro am amul. opportunité te képp kuy bëgg sëñ Saliou wala ak kii bëgg set seet Béthio rek li muy wax di nga ko yëg de. ndeysaan maa ko wax. non déggoo ma déggoo ma moo am de. déggoo ma xam man da man man man dama xam son. Mhm. xam ci wàllum son dama ko xam. xam naa loolu mais maanaam nee naa papa léegi ci si ginnaaw. message naa leen nee naa est-ce que micro sawaay est-ce que defoo leen ko autotune. lépp social shopping rek ah gars <laughs> ah bi moo jugati. way koor na la. binda fi way fi sunu sang bi kon dem baay waayal xam naa ni sax du wekku la mooy ndax way ko war na la baat bu neex bi man yaa ma ko may mbaay waayal billaay na maama na way way ko war na la ba way la man lii ma bëgga way kon dem mbaay waayal eer yu neex yi ga yi di way e way ko war na la ñeneen ñi yow lañ ko war way kon de wayal ku way keneen kudul ki way man ay waay xamal way wanil na ci jay kon de wayal ku way keneen kudul ki way ee way ko war na la ko manti way kii ya may kon de mbaay wayal ñaani jën am na lu ko gën way ko war na la fexe la xam na ñi na pejën kon de wayal nga am sa ma am man way ko war na la sa ma am sama jën man way ko war la ku nekk foog ni saw jën kon wayal mbàkke balla yaa way way ko war na la mbàkke balla yaa jara kañ kon wayal yaa wayal mbàkke yaa jara feccal mbàkke way ba dee sëñ Saaliwu way leen kii ji leen kii borom xel koom. waaw waaw macha allah macha allah. seulement sax naan ndox ndax sama xol bi tooy na. mis kontaan naa kon euh, ni ngi leen di jaajëfal euh, di kontaan euh, ci invitation bi di leen fàttali ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Laye Thiaw Ibn Ibrahima Seyni conférence bi nga xamante ne mi ngi koy taxawal 26. maire fii ci quartier Jéego nga xamante ne femme association yi nga xamante mooy femme déggoo yi ñoo koy taxawee fii mis incha allah rabbi te xam naa Tawfekh Mbaye di nga ñëw. allah. incha allah rabbi kon euh, beneen yoon ci beneen émission rek incha allah rabbi ak euh, beneen daana. jaajëf Tawfekh kontaan jërëjëf kontaan na sama xol sedd na mis ok waaw ah, kay. beneen yoon ci yeneen yu bees tàkk.